yéene kaabi di libération ne lu jëm ci xeexum dorog fii ci réew mi douane bu sénégal ma ngi cey béy waar wu yaatu ndax yàggul dara teg nañu loxo ab camion malien gu yóbboon lu toll ci junni kilogaraamu dorog yu toftal ñaari téeméer ak ñeen fukk yéene kaabi ne camion malien googule dakar gii la doon jëm si waaye waa douane ñu ngi ko tegee loxo fa tolloo Koungheul libération di ñu fàttali ne yàggul dara douane teg nañu loxo ab gaal gu yeboon lu toll ci téeméeri kilogaramu dorog ca waaxu Joal te jamono joo xamante ne teg nañu loxo yàggut limbu takku ci ay garab yu bon foofee ca diwaanu Jurbel ci Sonacos ak guute gi nga xam ni ma ngi fa fas yéene dugg Sonacos day boo moytuwul daañu ko fàtte te du yàgg ci réew mi source ak libération ñoom ñoo nga ca lakk ga woon ca building administratif Mamadou Dia yëglekaay bi ne ginnaaw xayma gi ak enquête wi ci ëpp woon juróom-ñaari milliards sunu koppar moo seey ci ngelaw li libération ne douane bu Sénégal defete na beneen jaloore ndax lu toll ci junni ak ñaari téeméeri ñeent fukki kilogramme ci yàmbala teg loxo ci benn camion malien te ko Diourbel te loolee lépp bu ñu ko xaymaa toll na ci 256 millions